Euh, jàpp naa ne euh, at moomu ñuy dem asmara euh, tumaan dafa gaañu ndem si yàlla sa grand càmm moo góol bi muy jàpp bal bi daf ko jàpp comme ni li li ndaloon keer rek daf ko jàpp dégg sifflet defe ni arbitre dafa sifflet mu teg bal bi pour dóor waa ji dóor ko suñu kan ñu gagné génération boobu ñu ci bokk bu ñu amee jafe-jafe bëreetuñu. bëreetuñu bëreetuñu état bi mën na leen jël en charge. mais loolu dadul dara sax dadul dara c'est-à-dire xam nga loolu day dundal nit gis nga euh, yenn yenn dee yu metti yenn dee yi ñuy gis nii sax li ko waral mooy sa xol day jeex sa xol day dagg parce que ñaari yëf ngay danga naan man la ma waroon a def yëpp def naa ko te li ma ko doon defal jaruñu ko fu ne yëkkati naa ko yëkkati naa ko lu ne dugg naa ci. <laughs> Ah, damm naa ci samay bëñ damm na ci et cetera et cetera donc ba nit ñi jàng ak di def leneen léegi sax xam nga ni. football bi métier la. dangay xale yi ni ñuy ni ñuy jëndee cahier ak stylo lañ leen di jëndalee godaas donc ah, gone yooyu ah, ni àddina tëddee fii mu nekk ku ci mën sa métier euh, euh, déglu say waajur ak ñi nga xam ni ñoo la ci jiitu. yàlla mën na laa dimbale ba nga xam ni xëy na jafe-jafe yi ñuy wax ni doo ko am waaye nag ñi nga xam ni ñooy meññ ñoo ñoo ñoo fi des ay benn benn. nañu fexe ba ñooñu lu bon bon état bi won leen ni li ngeen doon def gis nañ ko bu ñu bàyyi ba mu ba ba lii xew nii. Hmm, lii xew xewaat ñu jàppati leen yóbbu leen daal di leen denc tëggal leen raaya sant leen gërëm leen fekk seen dund. Hmm. metti na maa ngi dégg keroog grand koya li mu doon wax. Hmm. koya bi muy wax bi muy wax ñëpp a ngi koy dégg gone yi ko waroon ñu ngi koy dégg plaidoyer la doon def pour grand Pape Diop. su entraîneur équipe nationale la woon. Caire mhm. 86 na Sénégal pour dem Caire 86 ak lu fu mënti am ñu éliminé ñu. Mhm. kooku defe naa ni réew mi am na njukkal lu mu ko amel ay Aïda Diagne ñu nominé ko meilleure basketteuse du siècle du siècle. Mhm. mooy cent ans jàpp nañ ni. yaa fi gënoon a aay mu feebar ba tëdd nekk ci ay jafe-jafe. lañuy xaar xanaa moom tam yàlla tere tereti ko mm. jàpp naa ni fi mu ne comme ñun mën nañoo dem ci nit fi mu ne. Mm. mën nañoo dem ci autorité yi fi mu ne man wax nañ ko gàkku xam nga accessibilité tam dafa am solo. c'est loolu moo tax ba. Mm-hmm. danañu fi mu ne mën na noo sol suñ dal dem ci dem ci ñooñu parce que ñoo ñoom ñoo bokkoon yëf yi wax leen ne leen am nañ jafe-jafe nangam nangam nii affaire du jong bi demee bu fekkoonte ne gàkku n'était pas accessible information bi passé wul dañ koy denc France. waaye bañ ba information bi tombé grand Ablaye Diaw jël téléphone am woo Ablaye woo gàkku mu ko kan laa mën a woo nit ñi am na solo. Mm-hmm. parce que bu ñu fàtte mukk ni soxlaay nit ñi moo tax askan wi tànn leen ne leen yéen. Mm-hmm. la ñu dénk suñu réew. et dans ça qu'est-ce que la fédération pour faire comme rôle primordial. premier rôle fédération c'est d'abord un rôle de facilitateur mën naa jàpp ni fédération. am na yu bëri yu muy def yu nit ñi yëgul xam nga dégg naa yu bari yoo xam nit ñaa ngi naan def naa lii def nañ lii nangam nangam ñun duñ ko wax waaye xam naa li Augustin def ci ñenn ñi waaye loolu it may nit jën la rek jàngal ko napp moo gën. est que c'est possible def benn mutuelle. loolu ñoo ngi ci yegg xam nga. Euh, boo xam ne ñii football fi mu ne ñii football fi mu nekk ni ma ko waxee. Mm-hmm. ñii football fi mu nekk euh, fédération am na statut. du footballeur statut footballeur boobu am na nu ñu ko defaree. nit ñi dañuy fàtte ni footballu football professionnel du Sénégal du yow du man du la Lamotte du Augustin c'est let c'est une décision de l'État du Sénégal. moo ne léegi damaa bëgg ñu def football professionnel dajaloo leen ngeen xalaat nu ngeen ko defee. yónnee ma ko ñu xalaat ko yónnee ko ko mu amandé ko yónnee waat ko ba ñëpp juboo ci ñu ne nan dem professionnel booba ba léegi nag état bi defu ci 15 wala dërëmu koppar te euh, équipe bu football bu ne. Mhm. yaa ngi fay lu bon bon cinquante personne cinquante personne boo jëlee 30 clubs c'est 1500 personnes. yoo xam mhm. ñi ngi joxe salaire. nit ñi nag mënuñu di def ay agence di jàppale fii di jàppale fee uniquement agence de l'emploi agence de ci agence de saa nangam nangam ay nit yor ay nit 1500 personnes mooy ñi ñuy fay. te hmm. bokkul nag dangay ngay ni dafa am équipe A. équipe équipe espoir. espoir am équipe junior. Mhm. am équipe cadette boo ko seetee c' peut-être des centaines de garson qui sont entretenus tous les jours te nag nit ñi defee ci éducation la ñu war a defee ci football léegi parce que football léegi ci la. école de football école de football la école la. Mhm. dañ koy entretenir donc maa ngi am yaakaar ni état bi mënul toog rek di ñu seetaan jëmale bu kenn xamul parce que boo seetee ñenn ñi sax dañuy dem ba ci biir ñu ne est-ce que li mënuñu ko bàyyi benn yoon. mais boo ko bàyyee te fekk door nañu ba ba teg si fii man li ma jàpp mooy nañu dem ci nit ñi wax ak ñoom. parce que réew mi ñi fi ne léegi mën nañu mën nañoo dem wax ak ñoom nag ne leen lii de yéen ñu ko dénkoon état état continuité la ñi jóge nañ fi yéen a fi ne lii lañ waxante woon ak ñoom defuñu ca dara donc tey lu ngeen xalaat ni moom ngeen ci war a def mënut a nekk ñu continuer itam. Mm-hmm. ñu naan. Euh, kii feebar naa ña ngay dank tànk ba kay hospitalisé nañ ko nangam nangam ñu yeewu suba ñu ne diw gaañu na ñu ñu defub dank dem seeti ko li may wax sportif yi je parle même pas des footballeurs sportif yi nañu structuré nekk benn bu ko defee lu ñuy laaj ñu laaj ko parce que nag ci réew mi lañ bokk. demuñu hmm. fenn li ñu fi def boo ko seetee saa bu ñu yàqee ñun ñooy defaraat ba mu baax bu ñu defaraatee ba mu baax nag ñu teg ñu ca wet ga ne ñu. Euh, yéen mën ngeen a xaar bu ñu yàqatee ba pare ñu ñëwaat defar comme ñun ay sénégalais yi demuñu fenn footballu Sénégal la ñuy wax sportu Sénégal la ñuy wax. ci la ñu ne. dañoo jàpp ni ñi nga xam ni ñooy sunu ay mag dem ba seen doole jeex nga xam ni dañu ko dañu jël seen àddina yépp defal ko defal ko rek euh, réew mi. Mm-hmm. waaw réew mi amee na leen jukkal. li nga wax noonu lu am solo la may fàttali suñu mbokku téléspectateurs yi euh, ne ne ñi ngi ci biir émission décryptage parce que ñi war a ñëw am seex dañoo demoon denc néewu kii nga xam ne moo di Jules François Bocandé ñi ngi ci yoon bi mm-hmm. euh, ñooñu parce que tamit ñooñu day baax li may wax ne ginnaaw li xew yëpp euh, te te mu nekk loo xam ne delloo njukkal la Jules François ba mu yelloo ko bu baax mm-hmm. day jaadu bu ñu tolloo ci waxtu wi tamit ñuy waxante dëkk parce que dama jàpp ne euh, mënuñu nekk ci réew moo xam ne am na ñoo xam ne yëkkati neen raaya bi yóbbu ko ba certain niveau ji tey jii ñu nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne ëllëg ak sibir yàlla tere tereti ko bu leen dencee ñu ñoo taxaw sargal leen ne on a perdu mu yox fa. Mhm. kon dama jàpp ne ñoom seega xam naa bu ñu féexee rek dañ yegg si fii. ñu ngi ci yoon bi ñu ci yoon bi. di wax li nga xam ne moo di kii bi. léegi euh, ci ci par rapport au la même de la la place. des anciens internationaux même pour reconstruire le football sénégalais. waa xam nga sax <laughs> xam nga moom euh, loolu euh, dama jàpp ni. parce que dama jàpp ne France dañ dañ ñu koy jaay. waaw bekkan bekkan ba doo wax football Allemagne. non xaar wax la rek France nu mu demee France bi mu demee ba ba nga xam ni dañoo dem ba jaxasoo dañu dem jëli benn waay bu tudd Stéphane Kovacs nommé ko directeur technique national mu restructuré footballu réew ma ne leen nag mënatuma nangu xam nga c'est une grande nit ñi da leen di rëcc bataille bu rëy rëy la. Mm-hmm. benn xale day dem jàng école dem dugg INSEPS. Mm-hmm. def optionnaire football génn ñu ni ko yow entraîneur de troisième degré nga ñu ne Léopold Léopold Diop international football nga fi nangam nangam et cetera cetera. Mm-hmm. yow mënoo entraîner. parce xam nga loolu. c'est une forme de discrimination bu ñu la bëggee éliminer boo amee 1 mètre 87 dañ naan ah ku am 1 mètre 80 la ñuy koy def <laughs> xam nga xam nga xam nga intellectuel mën na théoriser lu nekk xam nga ñu doon théoriser ivoirité xam nañ ni loolu du dëgg yoon Pape Alé mais dañ koy bind ba nga xam ni dañ naan ah lii yenu na maana bu ko defee France loolu la doon def bu njëkk. Mhm. dañ doon jël ay entraîneurs yoo xam ni génne INSEPS rek ñu kii euh, euh, ñun kii leen ne leen nangam na waa ji mësul tël de bi mu ko dindee ba léegi. gisati nga benn ante ñoom Deschamps ñoom Laurent Blanc ñoom ñoom ñoom Tigana. Mm-hmm. ñoom ñëpp discrimination positive boobu mooy tax ba ñu mën a dimbale ki nga xam ni lii la tànnoon ne loolu lay def mu mën caa jariñoo euh, les métiers du sport sont multiples les métiers du football sont multiples. Mm-hmm. bu ñu leen jàppalee ñoom. nu dem ba nga xam ne waaye nag nit ñi bu ñu ñëw di xëccoo loo xam ni moom moo ko yàlla xa yaa xay ci mm-hmm. yow mënoo toog. man man sama doom euh, expert comptable mais bu ñuy wax football day ñëw laaj ma mais papa kat man lii nangam nangam ma expliqué ko mais ñii bu ñuy wax ak yow day mel ni ñoo juddule football ñoo juddule basket ñoo juddule handball. Mhm. bu ñu réglé loolu danañ continuer éternellement defe naa ni euh, am na ay xale yoo xam ni fi mu nekk tànn nañ dañuy def sport dañuy def. Mhm. dañoo bëgg ne entraîneur. il faut ñu mhm. dimbale leen ni ko. Euh, fédération bu bees bi defee. Mm-hmm. am sata am sata def lissance C. Mm-hmm. gars yi yëpp def loolu. Mm-hmm. Mm, nañ leen dimbale ba ñu mën a def seen lissance seen lissance B dem defi seen lissance A continuer. bu boobaa jàpp naa ni euh, sunu mission dana dana presque jeex gis nga amélioration football bi. foofu lay jaare parce que football dafa am lu bëree bëri. loo xam ni daf daf koy mbubboo. te ku ko xamul xamu ko gis nga déplacement wu équipe de football. foofu la compétition bi commencé la compétition surtout tout ça c'est le déplacement. c'est la restauration le suivi médical le discours discours bi ngay li ngay wax xale yi loolu ku ko xamul mosoo koo dund jàngaluñ la ko. foo koy waxee. très bien ci loolu sax la ki nga xam ne moo di Sega Sakho xam naa fi mu nekk nii war nga sonn trop. parce que lu ko dalee li nga xam ne mooy li nga dund démb ci stade Demba Diop ak tey jii dem nga yóbbu ki nga xam ne euh, moo du euh, Jules François Bocandé ci fi ñu ko denc fu mujj duñ la wax sax li nga xam ne moo di lan euh, nga dundee loolu parce que sénégalais gis nañ ko. ñu mhm. ngi ko dundee li ma lay laaj moo di est-ce que tey jii foogoo jot na nag ginnaaw ban dencee Bocandé ñu taxaw ndax nag lii bu mu fi amati.